الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن والاه جعلنا الله منهم سيرين بي نيو لين دي سيرين بي دا سيرين بي دا واخني ني ساكول كو نديغال تي ياو تي لي موي بوجا جيف نينا بو تي امي نديغال مان كو تامبلي نينا امغا تي نديغال بو باخ الحمد لله الحمد لله الحمد لله kàddu gu gàtt nee na sa rakk na kàddu gu gàtt incha ndax fa ñu ko taataane la ak fi mu jëm si. nee li waral muy gàtt mooy kàddu gi fa mu tukkee ak fii mu jëm moo waral mënula gudd. ci tële ak lottaange ci ni ñu ko taataane woon ci. mbokkam soppeem xaritam léppam mu ni yëg ak lot ci man ko toxal na mu waree jële ko ci sa mbokk sa soppe Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour indi ko ci yow ñu laltaaye ko ubbee ko turu yàlla subhaanahu wa sant yàlla bu baax a baax nee na xanaa ñu laytaaye ko muy wax ji mooy ubbee wax ji turu yàlla subhanahu wa taala teg ci it sant ko di def salaatu ak taslim ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na di julli di sëlmal ci sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallama di ñaan itam suñu borom subhanahu wa taala ci darajay ndawam soppeem boobu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam يال نيو يالا فايال سونو مام جوبا دي دي شيخ الخديو ني دي نيان سبحانه وتعالى كي درجهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سوبم بوبو يا نيو يالا ووتو فايال نيو سونو مام جوبا دي مام شيخ احمد بامبا رضي الله عنه سيرن بي سا مبوك سا سوب مي ngi lay nuyu di la ziyara di la ndokel di la massawu choono muni sa mbokk sa soppe mi ngi lay di Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour nee na mi ngi lay nuyu di la ziyaara. amoon loolu yéene ak mbégte ñëw teewal boppam ci jëmmi boppam waaye ngant téye ko. nee na amoon yéene lii ñu ko defal wutu ko ci mu defal ko boppam waaye yàlla dogal ngant gaar ko. ñëw ci sa wet toog bokk ak yow lépp ak fépp. nee na ñëw ci sa yow ci sa wet toog bokk ak yow fépp ak lépp. ndax lii kat xew-xew la boo xamante ni mbindaafoon yëpp a ko moom. ndax lii xew-xew la boo xam ni ku yàlla bind am nga ca cër. rawatina jullit ñi. rawatina nag jullit ñi. waaye ci biir jullit ñi nag rawatina moom ci jëmmi boppam ak njaboot gi yëpp. ci biir jullit ñi nag rawatina moom ci boppam. ak njaboot gi yëpp. ndax lu leen yàlla boole la. ndax day loo xam ni yàllaa leen ko boole yéen ñaar fa tabaarakallaahu mu ni fa tabaarakallaahu kàddoom yooyu nag mu wuutu ci mbooleem sa xadra maam Cheikhul Xaaji Malik nee na kàddoom yooyu nag mu koy wuutul di ko ko jotalal ma nga ca wuutu moom it mbooleem xadra sa maam Mawlana Cheikh El Hadj Malick radiallahu an waaye waaye gunge ko ñaan gàttandoo ko ñaan mu jëm ci sa taxawaay ak ngërëm bu jëm ci sa taxawaay bu rafet ci diggante bi ci lépp loo xamante ni rek na diine ji ci taxawaay boo xamante ni bii ñëpp xam nañu lépp lu itteel diine ji rek sa sa loxo nga ca biir. itteel réew mi. itteel réew mi. itteel askan wi. itteel askan wi. ak jaami yàlla yi. ak jaami yàlla yi. ci lu leen dimbali. ci lépp lu leen di dimbali. lu leen di taxawu. ci lu leen di taxawu. luy rafetal. ci luy rafetal luy boole luy boole luy yewenal luy yewenal yoy la yep yaa ngi ci suba ak ngoon neena yoy la yep gis nañu ni yaa ngi ci suba yaa ngi ci ngoon mom dal mi ngi lay ñaanal ñu and ak mom di la ñaanal neena mom dal limu ñu yoni ñaan la ñu and ak ñom momit ñu nit di la ñaanal nag wëlbatiku di la ñaanal ñun ñep gannaaw guddu fan ak wër ak karange gannaaw guddu fan tek ci wër tek ci karange gu joge ci suñu borom يالنا لا يالا جوخ غيرم المام شيخ الحريم رضي الله عنه تين غيرم موم موي غيرم لي صلى الله عليه وسلم يننتبي لو غيرم يالا غيرم نكو تي موم موم المام شيخ الخديم موي غيرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تي يننتبي صلى الله عليه وسلم لو غيرم يالا غيرم لولا سيدنا بابا كم نينا ميغي فدلي وات موكو بي اك كولري اك تيوفيل nee tanki tanki yi tànk yi ak bokk gi ak taranga ak yeg yeg yi yep ñu koy feddali ci tanki ba ci yoonu mujj wi rek nga yebaloon serigne Mouhamadul Bachir Abdoul Qadir mu ànd ak njaboot gu tedd gi ci teraanga yi nga xamante ni indi woon na ko nga teg ko ci loxo mu indi ko def ko ci liggéeyu juma ja ba ca yoonu mujj wi rek nga xam barki démb sa jawrin di suñu bàyyi Seyd Mouhamadul euh, Bachir bu mam abdul qadir ñew and ak délégation bu reuy bañu andal indi teranga ju reuy ja nga xamanteni bi mom nga len jox ñu yëkëti ko tek ko ci loxol goor gi ci kilifa ga ngir mu jëm ci liggéey juma jojé nga xam ni la lay taxawul fofu ak leneen lu xew rek ak lepp lu xew ak lépp lu xew gis nañ ni sa loxo noonu la ci démé muy liggéey bo xamni ni muy liggéey bo xamni nak ñu mel man ñu bari dinañ ci dinañ ci rectifié na muy liggéey ak jëfin woo xamante ni bii ñu baree baree baree baree bari dinañ ci dinañ dinañ ci seetat seen bopp. dina dina tamit am soññ ci ñun. dina nekk it ab soññ ci ñi ci ñun. ci takku taxawu. ci takku taxawu nag. ci diine ji. ci bokk gi. ci réew mi. ci réew mi. ak lépp loo xamante ni rek dinañ ci. njariñ dina ca mën a jur tey ak ëllëg ak lépp loo xamante ni bii mën naa jur njariñ tey ak ëllëg nee na mi ngi lay ñaanal yàlla nee na mi ngi ci teg nag di la ñaanal yàlla bu baax a baax mashruwaat yi nga sumb yëpp mboole mashruwaat yi ak projet yi nga xam ni yëpp yaa ngi ko sémb muy ay sémb yoo yoo fi ne yàlla na lépp sotteeg jàmm yàlla na nga sottal yëpp ak jàmm mu ànd ak wér ak jàmm ak fekke ak tal ak tal ak sago ak sago nak ak karange ak karange xamna ni lott nañu ci lañu ñu taataanoon ci mom manu ñuko jotal lepp neena kaddu yeñu ya won ci mom ci nim ko waxe won ci njaalbeen néew na doole lott na ci man ko jotal na nga xamanteni bi non la ko wara jotale tax mu boole ñu ak njabotam gi di sa njabot neena lolo taxone nak mu boole ñu ak njabot ñi mu andal di sa njabot nak دي سيري محمد الحبيب دي دومم دي سيري محمد الحبيب سي دي دومم دي سا دوم دي سا دوم اك سيري سيد احمد سي دي دومم دي سا دوم اك سيري سيد احمد سي بو سيري عبد العزيز سي الامين دي دومم دي سا دوم اك سيري باب يوسف جوب ميغا خامني موني وال اك سيري باب يوسف جوب ميغا خامني bàjjan Asiyatu si bu sa maam Cheikh Alhaji Malick. nee na bàjjan Asiyatu si bu Maulana Cheikh Alhaji Malick. mi maam Youssoupha Diop dëkkoo woon ca Fass. mi maam Youssoupha Diop dëkkoo woon ca Fass Jaksaaw. ñoo meññi way juram. ñoo meññi way juram. di alxaaji Mouhamadul Moustapha Diop. di alxaaji Mouhamadul Moustapha Diop. fa tabaarakallahu. fa tabaarakallahu. ànd ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Gueye. ànd ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Gueye. waaye ànd ak tamit ay doomam di say doom. waaye ànd ay doomam di sa doom ñu bokk ci délégation bi. di njabootam di sa njaboot. di njaboot tamit di sa njaboot. di alxaaji Abdoul Aziz. di alxaaji Abdoul Aziz Ndiaye. bu alxaaji Ale Ndiaye. bu alxaaji Ale Ndiaye. ànd ak rakkam alxaaji Baye mu ànd ak rakkam alxaaji Baye Ndiaye. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. ñi bëggoon a ñëpp bari nañu. nee na ñi bëggoon a ñëw ñëpp bari nañu. waaye ñun ñoo ñëwoon di wuutondi leen. waaye ñun ñii ñoo fi jiitondi wuutondi leen. ne ñu bu ñu agsee tamit nañu aw ci alxaaji sawru kebe. nii bu ñu agsee it fii ci dëkk bi ñu àgg ñu jaar ci alxaaji sawru kebe. mi fi nekkal xadra bi. mi nga xamante ni bii moo nekkal waa xadra maam Cheikh Alxaaji Malick fii ci dëkk bi. waaye di sa njabootu bopp. di sa njabootu bopp it nag. mu ànd ak imaam alxaaji Abdallahi Kebe. mu ànd. Ngasama ca Daaru mi nga xam ni mooy imaamu Ngasama Daaru Rahman. ak Alxaaji mu ànd ak it Alxaaji Omar Kebe doomam. ñu ne ñu ngi ànd ak it suñu rakk Babacar Diagne. ñëw nuy si la. ñëw nuy si la. ziyaar si ziyaare si la. ndokkeel si la. ndokkeel si la. masawu la. masawu la. yeesal cant. yeesal cant. ak ngërëm. yeesal ngërëm. lépp bàyyi ko ci. ci ci kaddu yi sa mbokk sa soppe lépp bàgg bàyyi ko ci kaddu sa mbokk sa soppe Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour. ñu ngi jégalu bu baax Serigne bi. kaddu yi Serigne bi ñu ngi koy jégalu ñu ngi jégalu guddaay wi. ñu ngi jégalu bu baax. ñu ngi jégalu bu baax ak jataay beeg yëpp ñu ngi koy jégalu. papa Abdoul Aziz am na teraanga yu mu indaale. nee papa Abdoul Aziz mii Abdoul Aziz Ndiaye mii am na teraanga yu mu indaale. ci ay gàtt. yu jëm ci ay gàtt. fukki gàtt la. fukki eh, nag la fukki nag tonu ceeb. ak ak ak fukki tonu ceeb. ak dëwlin. ak dëwlin. ca ànd yëpp. ak ya ca ànd yëpp. fa tabaarakallahu fa tabaarakallahu. bii rek doyoon na ci tey. loolu warlu jotaay bii doy na ci sëkk doy na ci جوجو اللي جبل تمد نيو سرق سسوبش الشيخ الحاني مالك مولوك لا سبحانك الله يبقى اللي سبحانك الله جوجو جوجو جوتي في سنو خل سارينا لول سنو خل سارينا لول سنو خل سارينا لول ci cadre bi Ahmed mi mune ci cadre yi nga xamne serigne Sidi Ahmed yëkëti nako sori na mu ne sori na ci moom lool. mu ne dégg na ko itam benn par benn. mu ne xolam sedd na ci guy yi. mu ne xelam dal na ci rëteex. mu ne yaakaaram it dolleeku na ci. suñu suñu bopp yi mu ne suñu soññ suñu bopp yi dolleeku na ci bu baax a baax. mu ne mi ngi sant di gërëm bu baax. bi ci ndaw yu baax yi eh, mu ne ci jataay bii nga xam ne sëriñ Aba Aboubacar sëriñ Mbay yebal di jëmmam. mu ne loolu gis na ko bu baax a baax. mu ne yëg na ko it bu baax a baax. Eh, mu ne mënta. ci cant ci jëf ju rëy ji jëf ju mën noo xam mën na mu amul mu mën nu ko mën noo xam nu koy nu koy tënkee wala nu koy waxee ci xeeti cant di cant yu rëy yu sóot ci ñun ñu xam ne wóor nañ ne am na dolli ko nañ ci li ñuy jëriñ teegal la xam ne ne jotaay bii dolli ko nañ ci ndollan lu rëy ci ñun alhamdulilah yëg ko xam ne dañ leen def lépp lu dolli texe rek. waaw foofu noonu rek laa ko mën a. ndeysaan ndeysaan tax diire tax diire waaw ndeysaan alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. mu ne waaw mu ne xolam sedd na guy waaye xel mi dal na bu baax a baax. mu ne yaakaar mi dolleeku na bu baax a baax a baax macha allah. kaddu yi fa tabaarakallaahu rëy na lool mu ne kaddu kaddu yi fa tabaarakallaahu rëy na lool. sell na lool mu ne sell na lool. neex na lool mu ne neex na lool. mu ne mën na sëkk fa tabarakallah nee na mi ngi sant bu baax a baax ni mu demee ci bu fekkoon ne dong moo ñëwoon itam. mu ne jëmmi sëriñ Sidi Ahmed mii ni mu demee ci sëriñ bi bu moom fekkoon jëmmam gi képp moo ñëw képp moom doy na sëkk waaw waaye taxawaayam dafa sori ci moom lool mu ne rawatina bi mu àndee ay mbokkam yu baax yii mu ne jóge fa ñu bàyyi ko ci sëñ Aboubacar ba ñëw ba ci jataay bii mu ne loolu réy na ci moom lool mu ne sedd na xolam jërë ngeen jëf mu ne xamul lu mu a wax rek ndax li ci waaw mu ne léppam cant la alhamdulilah jërëjëf. Eh, mi ngi seedeel sëriñ bi tamit suñu mbégte. ne ci seen rakk ji toog di Serigne Chouaïbou sama ak mbooleem njaboot gi nekk. di ko dollee sàkkul ñaan. di ko dollee sàkkul ñaan. nga ñaanalal ñu ko yàlla bu baax. nga ñaanalal ñu ko yàlla bu baax a baax. ñun ci biir ñaan googu. ñun nag ñu ngi ci biir ñaan googu yi. waaw fa ñu ngi leen ko gën a dénk bu baax. bi ko moom it mi ngi leen koy gën a dénk bu baax a baax. jërëjëf tabaarakallah teewlu. waaw ah, waaw seeral gën na ko seeral bu baax. ah kay gën na ko santal bu baax. jërëjëf incha allah jërëjëf incha allah. nga xam ne wala li nu séq. Mm-hmm. moo ngi seeral suñu borom ne. Mm-hmm. daan ko ko sàmmal. alhamdulilah alhamdulilah sàmmal ko xadara ba yëpp. xadara ba yëpp li fi noo ngi noyyi incha allah. càmbute googu yi dañ ko bu ñuy dem dañ ko yóbbaale. alhamdulilah. ñun ñi ñun ñi toog ci jotaay dem yenn saa yi dinañu feeñalal sa cofeel gu mu am ci yow dina ci tudd ñaari yëf ñaar rek bu jëkk bi mooy woyof gi mu yëg ci yow ci boo toogee ci sa biir njaboot njaboot lañu nee na Aziz ak ak Baye mii rakkam njaboot lañu ay ndaw lañu te ay ndaw lañu it nag. waaye ndaw yu tënku ci kilifteef. waaye ndaw loo xamante ni bii ñu tënku ci kilifteef lañ topp ci seeni kilifa. yuy xeeñtu jub ak jubal. tey nag ay ndaw yuy xeeñtu jub la ak jubal. dara itelu len ludul dul rek jëf lu baax. dara itteelu leen lu jëf lu baax. delloowaat ko ci jaamu ko ci jaamu yi. ñu ngi di kon sëriñ baa la koy di ko denk. loolee li koy firndeel. Mhm. bi fi ñëwee barki démb rek. waaw indi teraangam ju rëy ji. waaw moo tax bi tamit xam nga wax ci waral mu jox ko ak ak kurus ah, la ca a am lañ ko dañ ko ba nga ba loolu lay wax nekk moom ba mu ñëwee rek loolu la ko wax ne ko la ci yokk yëpp taxawaay ba nga xam ne def nga ko foofu ci Tiwaawoon mu ne loolu doyoon na sëkk waaw lépp lu mu ci yokk rek andool leen la waaw moom ci Abdou Aziz Ndiaye waaw jërëjëf macha allah